nañu dem fee ci Papa Gueye Mouma ak Bulldozer Bulldozer moo ngeen boo ngeen bu lu weex li Papa Gueye ngeen boo ngeen ñuul beneen quart de finale ay dara nekk ca wàlla ñaari mbëri ku ci nekk ngi sëgg ci sa bëti um ñaari mbëri ku ci nekk yaa ngi sëgg ci say bëti um Papa Gueye Mouma Bulldozer Papa Gueye Mouma Bulldozer Bulldozer jàpp na loxo ba Papa Gueye ngay fippu arbitre bi nee na ko bu jàppee 3 rek baax na bu dee 3 la jàpp garaawul Papa Gueye Mouma Bulldozer quart finale dafa mel ni dafa mel ni ñaari demi finaliste yi nañu muy Ngagne Sène ak Tony Junior waaye xamaguñu kan moo ci bëre kan Papa koy sëkkatal mu ngi koy sëkkatal mu koy sëkkatal sol na ko Bulldozer génn na saako ya da ngay am avertissement Bulldozer Papa Gueye Mouma Papa Gueye à gauche wala à droite Bulldozer à léegi mu génne ko saaku yi ñu jox ko avertissement pour défensive moom Bulldozer dellu si waat na ñu jàppante waat ca kaw eh Bulldozer siif na ko sàcc na ko waaye Papa dafa teel a génn ñu ngay puusante Bulldozer a koy jéem a jël jël na ko ba jeex tàkk waaye Papa Gueye génnaan na ca Papa Gueye am na ñaari loxo ci ngeen waaye Bulldozer du ko ca bàyyi Papa da koy jongle da koy kalkaluk biti da koy kalkaluk biti da biti daan na ko kal na ko kaluk biti jaay ko doole fonce ci kawam daal di koy daan voilà lii la doole di jëriñ jaay na ko doole daan ko ay Papa Gueye Papa Gueye fekki na Tony Junior fekki na Ngagne Sène tànk baa ngay metti